Assalamu alaikum Boki Sénégal alaikum euh, chers militants sympathisants euh, man Mansen président Ousmane Sonko alias euh, Oscar Sierra Manio Fassine, Wartan Gien waxtaan Yugat, Wartan Di Wartanu yu Wartanu waxtaan Moi Wartane, jàmm la li ñu fas yéene waxtaanee mooy li nga xam ne moom lañu ñu bëgg a def muy actualité ci jamono ji lu leen ñu ngi ko ci wax lu leen ñu ngi ko ci bind muy convocation bi nga xam ne convoqué nañ ma ko ëllëg bu soobee yàlla ci midi moo war a dem jàkkaarloog doyen des juges ñuy sant yàlla bi convocation bi amee ndax Nous avons Nous woon la ñun suñu Nous ndax it histoire au Sénégal avons jël ab dossier pendant 18 mois Nous avons ko Nous avons déglu ki qui nous ñu concerné pour déglou, ko li entendre dans le fond Ya na dafa am lu mu ànd ak lu mu ànd ak mooy nee dañ maa def ci contrôle judiciaire mooy samay sañ-sañ dañ koo wàññi mënumaa tukki daanaka looloo ci wàññeeku waaye maa ngi dox samay soxla di dem fu ma neex waaye mënumaa génn réew mi diggante boobu léegi lu ne xew na fi ndax def nañ fi ñaari élection ñaari élection yépp ma nekkoon ci candidat jiite ay liste ngeen wóolu ñu yéen sénégalais yi ñoom ci ndam goo xam ne amul na table waaye ba tey wooguñ ñu woon pour wax ak ñun kon tey bu amee dañuy sant yàlla waaye balaa may dugg ci euh, sujet bi damay njëkk a gërëm senegale yi ndax bi mbir mi amee léegi sama téléphone sax dama ko mujj tëj fu ne du sénégalais ordinaire du góor du jigéen du xale du ndaw du kilifa diine du o fonctionnaire fu ne la nit di wootee di nemeku, di solidariser wu ak surtout di manifester njàqareem may remercier ñi nga xamné ñom la bokal ci géew politique bi moy li wax yeewi askan rawatina la conférence des leaders nga xamné tay ci suba def nañu waxtaan bu am solo wax ak sénégalais ñu bëri ci ñom nekkon ci ay yité bitim réew sax ku melni Khalifa Ababacar Sall wala ku ci melni euh Déthié Fall président Déthié Fall waaye dañoo dagg liñ doon def ñëw donte ci waxtaan nee naa leen jaru ko aajowu ko waaye bàyyi nañu lépp dagg billet avion def lu mat 6000 kilomètres pour ñëw teewe ñu ngi leen di gërëm ñoom ak ñeneen ñëpp ñoom Aïda Mbodj ñoom Cheikh Tidiane Dieye ñoom Cheikh Tidiane Youm ñoom Maymouna Bousso ñoom Moussa Tine doyen Habib Sy euh, euh, Diante vraiment ku lim juum waye confiance des leader yépp ñu ngi leen di gërëm leen sant seen taxaway di gërëm it sama grand frère Malik Gakou ci taxaway bi mu ci am ci ay communication yu mu defagum waaye di gërëm ñaar ño xamné bokku ñu ci mbootaayu politique waye ñu am ci taxaway wax ci moy professeur monsieur le ministre Mary Niane ak procureur Alioune Ndaw nga xamné xamanté wuñu ci jëm sax waye ñepp gis nañu taxawayam ñuko ci ciy ci taxaway bi waye surtout yeen wa askanu senegal yépp léeg damay tok ba siag mané man lan la defal askanu senegal ndax bu dara amé bu ñu tudd ci Ousmane Sonko ni ci nit ñi di manifester wo dafa jéggi dayo amuñu sen fay ñu ngi leen di bu loolu wéso nak ñu fatali ndax wax ji bari na waye dama bëgg dalal xelu ñepp lii lu ñu bëggoon ñun la suñu bopp fàttaliku leen ay weer ci gannaaw def naa fi benn émission ak ay journaliste demoon ba ne leen fileeg moom doyen des juges woowu ma déglu ma dootuma sax signé cahier bi te noonu laa ko doxalee woon moo tax fan yi lu mu demee ba jàpp dat ba ñu yëgal ma ko laa dem def la ma war a def kon ku tolloon foofu xam ngeen ni moom yàkkamti woon na da dégg Euh, waa boor bële suñuy wax bëgg a ëlëmal xelu Sénégal yi naan waaw li tax muy daw moom na dem uyu waaye man du ma convoqué sama bopp doyen des juges moo mun a convoqué mënumaa xëy yenn samay bagage dajale samay avocat ne maa ngi dem tribunal kon su yéexoon ci ñoom la yéexee waaye ñun lii lu ñu yàkkamti woon la am na tey lu ne ñu ngi ko ciy wax may dalal xelu Sénégalais yépp amul lu gën a ordinaire lii bu ëllëgee bu soobee yàlla dinañu xëy dem jàkkaarloog doyen des juges wax ak moom li ñuy wax ak moom ñibbi si fanaan suñu biir kër fii ak semaine prochaine ñu woyal incha allah suñu dox dem defi suñu nemmeeku tuur ñi naan ay su demee dinañ ko jàpp ak dinañ ko lii ak dara amu ci dama leen yàgg wax ni dossier bii du dossier boo xam ne dañ ma ci jàpp wala dañ ma ci tere nekk candidat dinaa ci dellusi kon ma dalal ñépp lii lu ordinaire la te lu mënul ñàkk la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 dama bëgg ñu dégnunte bu baax mbokk Sénégal bi ñu njëkkee ñëw ne ma da ngay ñëw par force man leen duma ma ñëw ndax dama am immunité dama am mbalaanu kiiraay boo xam ne député bu né da ko am té lool loolu téggi wuñu ko gendarmerie mënuma convoquer donc duma dem section recherche lolo andi won ciowli li bi ñu ñëwee ne dañ may jël ci forcé xalé yi taxaw né du fi amé mo ñëkkon andi problème bi amoon sans buntu kër bi ñu xamee du sotti ñu déllu wat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

man lele damay tok ba si yàgg reetaan dama nan Sonko beuri nga dole de wala Oscar Sierra bok beuri nga dole ndax bo mobilize sax waji mobiliser armée ba paré jël avion daw légui Arab la néna ligue arab la dem sommet ligue arab jël na avion daw conseil des ministres amul lool yëpp lu fi jar kon ñun duñu mom motax limay ñaan sénégalais yëpp seen yéeg-yéeg xamna ko te sori na ci man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

seen affaire u tappale ñu doon def naan trouble à l'ordre public mën a luñ ma ci dara ndax mosuñu maa gis ma def déclaration ne gars yi ñëw leen gunge ma bañ ma buggee forcé bu ci njëlbeen ba kay laa ne woon sama droit à la résistance ndax constitution moo ne ku ñu bëgg a jaay doole am nga sañ-sañu lànk résister waaye bi ñu jaaree fi ñu jaar ba ne levé nañ immunité damaa jóg dem ne damay wuy ji kon suba li may ñaan nit ñi ndaw ñi surtout bu kenn naan damay dem kër Ousmane Sonko wala damay dem tribunal wala damay dem fii wala fële audition man maay dugg ak samay avocat jàkkaarloog juge bi ñu waxante li ñuy waxante ma ñibbi sama kër loolu jaru génn moo tax ma leen koy ñaan ndax xeex bi xel a koy xeex xeex bi xadar xeexu ko xadar mooy mujj ci xeex bi waaye li koy jiitu xel la ñiñ ko seqal rek dañoo jàpp ni mën nañ def stratégie xam nañ ni amuñ dara dara dara ci dossier bi waaye dinañu créer ay provocation ndaw ñi nga xam ne léeg-léeg dañuy xër trop tàbb ci ñu mun a génne dossier ci biir dossier bi wala mun ñu mën a jaare foofu essayé naan dañuy teg loxo ñenn ñi te loolu jaru ko loolu mu ngi suñu kanam dinaa ci ñëw moo tax ma ñaan leen ne leen lii lu banaal la gàcce lay doon ci moom mu dajale li ñu am yépp ci sàndarm ak alkaati ñii mu jële leen ci région yi fu ne yàq xaalis bu dul jeex ci ay carburant ak ay prime ñëw ba fii ñépp dëdd ko romb dem des doxi seen soxla loolu mooy doon gàcce gi moo tax ma ñaanaat ko ak kum munti doon ëllëg du dara lu ordinaire la yeggaguñu ci dossier bi kon na ñépp doxi seen soxla ku dul amul soxla na nga toog sa biir kër ñu dem defi suñu audition ñibbisi te bu ñu ñibbisee dinaa dellu si nag ci loo xam ne lu yaatu la def benn point de presse waxtaan ak sénégalais yi nag ci dossier bi parce que foofu la ñuy toll après bu ñu ñibbisee dinaa leen wax kañ la dajale ñépp waxtaan ak sénégalais ci dossier ba ngeen xam ni complot bu ñàkk fayda ba pare ay kilifa yu mag a mag a mag ci réew mi seen loxo takk ci rip te ñu am ci firnde loolu lañu ñu eh, jàkkaarloog fi mu toll nii loolu yeggaguñ ci li am solo mooy suñu demee def suñu audition ba ñëw nañu seetaan suñu gaay fu ñuy mujje nañu seetaan fu ba bët di mujje gi wante wandentam ndax sàcc ndënd yomb na trop waaye fu ma koy tëggee loloo jafe ma baamuwaat ne leen dossier bi mënuma cee dem kaso dossier bi mënumaa tere nekk candidat 2024 bu dee nag ci lool lañu ñu bëgg a jëm lii ngeen di ruumanaat li leen mbir mi jaral ak xeex yi ngeen di waajal foofu lañ koy xeexee waaye du léegi moo tax ma ne leen bu leen yàkkamti jamono jële def naa benn live ne leen xeex kenn du ko xeex te ñoragul te ñoom ci seen stratégie ci loolu lañu ne waa ji xam na ni jeexal na takk takk takk biir njabootam sax tas na mil lu dul ñi muy fay xaalis ñuy wër ci télé rajo yi di saaga amul kenn kuy nit ku baax koo xam ne tey mu ngi ci biir njabootam sénégalais yi dëdd nañ ko wan nañ ko gannaaw te ñaari élection yi fi weesu passé na ko ndax ku jugee quatre soixante cinq pour cent tey nga nekk quarante cinq pour cent xaw ma quarante six pour jeexal nga takk ci réew mi moom loolu xam na ko moo leen ko gën a xam yéen ñëpp waaye ku mu yóbbaale la bëgg déglu leen ma bu baax de dama leen di wax waxu xel fi ne nii dañoo nekk ci phase guerre tactique stratégie boo ko dul def doo egg fi nga bëgg a jëm même ñi nga xam ne nitu diina lañ dañoo def stratégie ba yegg fi ñu yegg kon moom ku mu yóbbaale la bëgg yaa deux ans laa leen njëkk a génneel théorie la stratégie du kaw mooy nu muy def ba réew mi jaxasoo rek xeex am fu ne guerre civile sax am si mu profitoo ci ñun waruñu ko topp ci loolu te war nañoo góorgóorlu ngalawaay ba su dee jàmmarloo dafa war a amati mu doon bu mujjee ci jàmmarloo yi fi ma jaar yépp dama wax ni ñun jàmm lañu bëgg jàmm lañuy dox kenn musul gis ñu jóg dem dóor kenn kenn musul gis ñu jóg saaga kenn kenn musul gis ñu gaañ kenn kenn musul gis ñu rey kenn kenn musul gis ñu tëj kaso kenn te loolu lépp ñu ngi ñu koy def bis bu ne ñépp teg ci bët kilifaak sénégalais ordinaire xanaa kay ñeme ko wax wala bañ koo ñemee wax ku bëgg jàmm du weesuwul loolu ñoo ngi jóg sol suñu dàll dem di seeti sénégalais di waxtaan ak ñoom di leen waxtaan ci suñu gis-gis ak suñu programme di leen waxtaan di leen déglu seeni jafe-jafe di leen wax li tax réew mi doxul ci yorin gu ñaaw ak ni ñu taylee suñu réew jox ko tubaab yi ak ni ñuy sàccee xaalisu réew mi di ko séddoo ku bëgg jàmm dina doxe noonu ku bëggul jàmm dina doxee noonu ci jàmm ak salaam te gis ngeen fu ñu dem ñu jël ay nit fay leen naan leen songu leen saaga leen xas leen sànni leen xeer kon ñun jàmm lañu bëgg te ñaan nañu yàlla réew bu naree tegu suñu réew suñu loxo na doon ci jàmm ndax réew mu tasaaroo boo ko boo ci jotee it di nga def cinq ans mandat nooy def ba réew mi defaruwaat ba réew mi nekkaat ci jàmm waaye doo doo liggéey kon ñun jàmm rek lañu dox te nitu fitna ci réew mi kenn la te ñëpp xam nañ ko benn nitu fitna moo fi nekk fukki at yaa ngi tëjaate yaa ngi dóoraate yaa ngi reyaate yaa ngi gaañate yaa ngi sosal nit ñi fukki at ci loolu senegal yëpp teg ci seen bët kon dama ne jot waxtu wi jotagul na ñëpp tey te dal waaye bis bu ñu bëggee yegg fenn fi bu soobee yàlla lim len ko jaral rek dinañu jaral lu ko ëpp téeméeri junni yoon ndax ku xol ni ñuy def ni xamni waji amul doole de day napaté ndax bu audition rek dara yëngatoogul nga dem sax ba ci ay élève yu nekk formation nga dem jëli leen moy day essayer xëbël Sénégalais gis nga bi wax affaireu budget bi ñu budget mbay de ñu budget budget waxu ñu budget paj mi li jëk wax moy 300 xawma ñaata milliards pour pour pour pour alkaati mëna door nit ñi. loolu yëpp ci bataille psychologique bi la pour napp Sénégalais yi pour gëmloo ni waa ji yor na loo xam ne waaye lu raw mars moo fi nekk ci jamono ji yëg na ko yéegu ko moo fi nekk tey alkaati yi mu yaakaar alkaati yooyu ay sénégalais ni ñëpp gis nga Donald Trump bi mu bëggee jaxase élection bi bañ bëgg bañ ne du du du delloo pouvoir bi chef d'état-major des armées moo ko ne ñun ay républicain lañu da ngay delo nguur gi wala ñu jëlé la fi loolu moy armée armée république bi la fi nekkal nekku nekkal fi Macky Sall de bu Macky Sall démé bo naro warok as warok askan dem ba bëgg note askanam dem ba bëgg ray askanam day jaadu wa armée taxaw ne ko li du fi amé te gëm na ni bis bu ñu tollé fofu moo ko défé nonu dina démé nonu motax ñu nañu ak ak dal dem audition delu ci jamm waxtaan ak sénégalais ci li xew ci dossier bi daal di jóge foofu dellu def suñu nemmeeku tour waajal 2024 lii moo fi am leneen amu fi may wax nag ni buñ ci tollee nañuy déglonte déglu leen ñu dañuy ñaan ngeen déglu il faut que ñu am discipline parce que léeg moo ñuy xaw a manqué ku nekk day jóg dañu damay def lii ñoom ci yooyu lañuy ñuy profité di jàpp suñuy nit benn benn loolu nañ ko moytu nañuy dégluwante am discipline ni armée amee discipline bu dara amee na ñépp ne tek bàyyi ba ñu jox leen information bi ñu war a am fi rek ñi ngi doxee noonu ñii mënuñ ñoo jekku ci seeni tàppale ndax ay nitu complot lañu subaak ngoon guddeeg bëccëg ci complot lañu dëkk waaye seen complot mënaluñu dara kon loolu la ñuy ñaan militants yi ak sympathisants yi du ko ñaan sénégalais yépp ndax mbir mi jeex na ba noppi de ku ñu joxoon douze ans ñu jox la fukki at ak ñaar nga def fukki at ak genn wàll juróomi weer ak fukki weer ak juróom benn moo ci des kooku bu ñu daanu ci ay ndëgg sërëxam nañu am intelligence boobu te bu ñu fàtte ni nag yi ñuy def ñëpp diversion la bu ñu fàttee lan mooy priorité yi mbokk yi priorité yi mooy lii mu nekkee ci ay trafic d'armes jël ay milliards yu milliards te dina am développement am na yeneen ndax mbir mi xaajul ba jeex jël ay milliards yu milliards dem jël ay trafiquants d'armes leen defar ay marché jox ko am ministère boo xam ne nee nga eaux et forêt la war a gérer jox leen 46 milliards ñu naan dañuy jënd ay armes te loolu mooy li gën a ndaw ci li nit ñi gisagum. loolu réew bu mu nekkoon ci réew bu normal tey waxatuñ ko ñu bëgg a créer ay diversion sénégalais yi fàtte seeni farata nekk ci ay sunna wala ay afdal bu ñu bañ bu ñu nangu loolu priorité yi mooy fi réew mi toll ci ndóol ak ci njëg yu cher ak sénégalais yi sonn nañu man de maa ngi ci àll bi depuis dix jours maa ngi woon ci àll bi quinze jours sax def naa ko ci àll bi te maa ngi waaj a dellu ci àll bi waaye li ma gis ci àll bi Macky Sall su ko gisoon dina xam ni ameel na sénégalais yi àq de dina xam ni ameel na sénégalais yi àq dëgg dëgg dëgg dëgg loolu mooy priorité yi priorité yi mooy assemblée nationale bi nga xam ne néew na fa doole tey néew doole boo xam ne xaar leen le 14 la plénière yi di commencé maa ngi ñaan sénégalais yépp nañu teewlu plénière yi te suivre député yi ndax dañ leen ne woon jox leen ñu député ñu wan leen taxawaayu assemblée tey ñoo yem doole ci assemblée wala sax mu gën a néew doole. loolu ay loolu mooy priorité sénégalais yi aujourd'hui priorité sénégalais yi mooy yi nga xam ne farata la ci ñoom te ñu koy dund seen dund bis bu nekk mu am jafe-jafe te Macky Sall tële ci munu ci dara ak suñu ressources naturelles yi nga xam ne jaay na ko toog jàpp ñàmburam gis nga ab askan bu demee ba fàtte lan mooy farata chaque jour ñu créé la ay faits divers nga topp ci faits divers ya ba ci réseaux sociaux yi sax ba ci ñun suñu njaboot dañoo am problème boobu ñu créé leen ay faits divers léegi ay nit yoo xam ne ngeen jégal ma ci kàddu ji duñu tekkiwuñu dara ci lu ñu mën a topp kenn ku ne soo xëyee génne sa sa benn vidéo nit ñi topp ci di commenter di wax nañu dellu si ci farata réew mi soo demee ci dëkku tubaab yi da leen di fekk ci farata réew mi tey soo demoon ci dëkku tubaab yi seen coow yëpp crise économique bi la guerre en Ukraine la euh, euh, euh, coût de la vie la gaz bi nu ñuy def ba jot si la ak yeneen ak yeneen sécurité waaye Sénégal soo fi ñëwee ñu ngi ci chaque jour nag ñu génne benn fexe ba tasaare ko nag nit ñi nekk ci di commenter suba ak ngoon guddeeg bëccëg nañu nañu fexe ba dellu si ci l'essentiel ñun ci loolu lañ leen woo kon li lañ leen bëggoon wax ci kàddu yu gàtt di leen gërëm di leen sant di leen jox da dig daje nag ci lu gàtt gàtt gàtt gàtt ndax it dossier bi du dossier judiciaire dossier politique la day baax ñu wax ak sénégalais yi ñu xam lan moo ci ne ak lan moo ci xew teyit di wax sénégalais yi rawatina nag ndaw ñi li ñu def nii neew ñu leen ngeen dem tëdd aj seeni ko jaas dañ leen ne jotagul bu dee jaaral nañ mbir mi yoon wasalaam buñ ko jaaralul fa na woon parce que nag suñuy mbokk suñuy rakk fukki bakkan ak ñeent rot na ci lii est-ce que tey jaadu na ñooñu li ñu li taxoon ñuy xeex mu leer leen lii du dëgg caaxaan la te projet bi ñu gëm du ñu nangu ko faagagal ba loolu daal leen si est-ce que dañuy dellu si waat ñaari at ci kan gannaaw mu mel ni dara musul xew Macky Sall ñëw continuer complot am daal dina yeggali na loolu du musa am fii ci Sénégal kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen